maa ngi nuyu di sant secrétaire général ministère du commerce euh, di nuyu di sant aussi inspecteur des affaires administratives et financières bi di nuyu bu baax suñu kilifa diine yi fi ñëw imaam yi fi ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay ci diine bi ak ci réew mi di nuyu également directeur général Malick Diop mi nga xam ne tey moo may jox lengey wax na ko li mu ñëw duma ci dellu si waat ndax hasard amul maa ngi nuyu aussi secretaire généralu ministère bi di nuyu ki fi toogal conseil de surveillance su ASEPEX di nuyu mboolem personnel bu nekk ci ministère bi mais surtout di nuyu mbokk yi am di jàmb yi xarit yi collaborateurs yi rawatina ñi nga xam ne maa bokk ak ñoom waaso politique bari nañ fi waa SICAP jeexuñu fi ñeneen ak ñeneen jeexuñu fi maa ngi leen di sant di leen gërëm mën naa wax nag tey ne tey ñaari waaso laa am ndax buñ ma dëkkalee APR aussi wër na ma ne waa AFP gën a kontaan ci gis ma ma fii kon mbooleem camarade du AFP yi aussi maa ngi leen di nuyu nuyu suñu mbokk journaliste yi di nuyu waa APSFD di nuyu commerçant wu région de Dakar yëpp yi nga xam ne yónnee nañ seen représentant yi di nuyu waa mutuelle yi di nu vraiment ku ma fàtte rekk na ma jéggal ndax ñëpp ñëw nañ kenn desul euh, may sant sunu borom bim ñu mayee wér gi yaram ak taxawaay ak fekke ak xel mu dal ba saa sunu xëyee bëgg liggéeyal réew mi ñu mën ko matale maa ngi sant président Macky Sall di ko réaffirmer sama loyauté ak sama engagement ndax koo xamul na koy def nam la def a tax te wax dëgg yàlla xamuñu nañ koy def ndax gore na ba mu mat sëkk mais surtout wóolu nañu ci lim ñuy dénk kon ñu ngi koy sant di ko gërëm cant ak gërëm googu rafet nañu wax ko waaye la ciy ëpp solo mooy ñu jëfe ko te li nga xam ne dinañ ko ñaan sunu borom mooy niñ ko tàmm di defee ñu yar ñu ci nàmpatal ñu ci tàggat ñu ci mooy lépp loo xam ne dafa di alal boo xam ne réew mee ko moom ñu teg ko ci sàttu réew mi teg ko fa ko réew mi laaj defee ko na ko réew mi laaj noonu la ñu mës di wéyee te dinañ ñaan sunu borom mu dimbale ñu ñu xal di ko wéyee ndax responsabilité engagement honnêteté ak abnégation la ñu warloo ak askanu Sénégal maa ngi aussi félicité docteur Malick jóg ndax taxawaay bi mu taxaw biir ASEPEX moo tax tey ñu mën a xool impactu exportation yi maanaam suñu service yi nga xam ne dañ koy liggéey ci biir réew mi jël ko di ko jaaye bitim réew mu mën a bokk ci lii équilibré lu ñuy wax balance commerciale mooy koom réew mi lépp loo xam ne dina bokk ci lu koy équilibré mu am ci taxawaay te docteur Malick Diop def na ci moom ak personnel bi nga xam ne ñoo nekk ASEPEX liggéey bu mucc ayib ndax bëri na distinction yoo xam ne bitim réew lañ ko ko defalee moo xam ci wàllu organisation coopération islamique la moo xam ci wàllu fondation 225 la mais surtout ci wàllu bureau internationale des expositions bi nga xam ne néew na réew yu fa ne te moom mu fexe ba Sénégal nekk fa adjoint kon loolu dafay wan ne li président Macky Sall namoon ci secteur bi wóolu ko ko dénk na ko ko ànd na ko ak équipe yi ñu doxal ko doxalin bu mucc ayib kon li ñuy war mooy tànk yooyu ak fa ngeen ko tegoon ñu mën ko matale mën ci wéy mën ko gën a yaatal ba nga xam ne lépp lu nekk offre exportable ci biir réew mi danañ ko saytu ba mën ko diversifier mën ko yokk mën ko gën a dëgëral pour mu gën a mën a ubbeeku ci bitim réew kon fi may tëjee rek mooy ñaax sama bopp ñaax ñi nga xam ne ñoo war a ànd ci liggéey boobu xam ne li ñuy xaar yaatu na li ñuy xaar bari na ndax kuy liggéeyal askan la ñuy xaar ci yow day bari waaye gëm naa ne nangeen ko doon defee dinañu wëy ànd di ko def ngir le bénéfice exclusif des population sénégalaises maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. waaw loolu moom xam nga yéen ñi jàng tubaab yéen ay wax euh, l'homme il faut à la place il faut euh, ñun ñu jàngul te yi wax wolof ñuy wax ni nit kenn ku ci ne la nga mérito rek lañ lay jox euh, Sahara dëgg yàlla mérito na ñu jox ko post bu ëpp bii parce day jigéen. te ràññee ko ci jigéen ñi ndax yaakaar naa 2012 ba nag ni mook président de la république ñoo ànd te président nag dama yaakaar ni am na fula ju day ni suñ ko dénk réew mi dénkaat ko réew mi euh, war naa mën a xam ñi muy àndal di liggéey ñan la li tax 2012 ba nag ni mu nekk ci keppaaram kon xam na ni liggéeykat la ñu dénk ko nag direction bu am solo surtout ci wàllu commerce muy lépp loo xamante nii day jóge fii di dem bitim réew te doomi réew mi di ko defar ak ci lu mën a doon ci produit mu am ci responsabilité boo xamante ni dafay jaar ci direction ak lu jóge bitim réew di ñëw yaakaar naa direction bu am solo la li ñuy def rek di ko ñaanal fi mu jaar yëpp bàyyi fa trans bu rafet bu neex a xool ba tax na président euh, am ci moom confiance reconduiraat ko ci beneen post bu bokkut ak post ministère suñ borom defal ko ci lu kawe njortam euh, ba mu liggéey liggéey bu am solo nàmmal ko xol yi ak xel yi ak xalaat yi ci ñi ko yàlla booleel ci mission bi mu ànd ak moom ñu jàppale ko ba mu réussir ci mission bi à 100 pour cent